waaw xam année scolaire 2020-2021, nous à commencer en 2019 dañuy continuer rek ci li ñu commencé stratégie ñu doon déployer euh, le numérique éducatif Le numérique éducatif c'est l'occasion aussi peut-être ñu euh, ñu wax ministère de l'éducation am na benn projet le projet du ministère de l'éducation pour le téléenseignement aussi muy baax ci yoo xam déjà lii day tax aussi beau et yi de plus en plus nous gën nous ñu nous a farlo qui, qui, farlu ci ci euh, ñu tëddi ci euh, euh, intéressé wu ci ci technologie de l'information et de la communication le aussi projet bu am solo la ci éducation dina accompagner xale aussi bu baax mais mais tam dinañu def aussi yeneen jéego yoo xam aussi pour. pour accompagner pour accompagner xale yi incha allah euh, ci wàllu accès maa tax yokk yokk classe classe yi classe préscolaire à l'élémentaire moo tax commencé nañu ubbi ay classe préscolaire à l'élémentaire ci biir école élémentaire yi dina am benn classe boo xam ne dañ koy wax classe préscolaire élémentaire maanaam xale yi am juróomi at ñoom lañ fay ñoo fay nekk te xale yooyu dina tax aussi ñu préparer leen. pour ñu war def si euh, année prochaine donc déjà nous aussi ci ci ci ci aksu euh, accès bi la mais aussi ci aksu euh, qualité bi dañ ci tàggat aussi jàngalekat yi gën len aussi jox ay jumtuwaay yoo xam ne dañ mën a tax aussi ñu mën ñom aussi comme ni ñu dalon ci Covid bi ñu xol moom ci ñu nañu nañuy war a def aussi ay cours yo xamné euh sous forme de de qui nu de en technopédagogie euh def ay cours yoo xam ne dañ koy def en ligne xale yi di ko mën a seetaan yooyu yëpp ay stratégie la yoo xam ne aussi dañ ko mën a dañ ko def mais aussi école yi aussi bëgg nañ aussi euh, améliorer euh, apprentissage yi euh, maanaam école yi aussi ñu jox leen ay jumtuwaay muy ay manuel ay matériel loo xam ne aussi mën na tax aussi ba njàng mi aussi gën a boo xoolee UEMOA dafa ne léegi programme yi budget yi ni ñu koy gérer programme budget buñ la jox nañ ci am résultat li la am li la ci def résultat bi la ci am donc lolu mom la aussi nek na lo xam aussi lu am solo euh lo ne aussi Sénégal dugg na ci depuis janvier 2020 te muy lu am solo aussi pour euh, donc la gestion aussi euh, efficace et efficiente aussi de nos ressources publiques aussi lu am solo la euh, ci jéego yooyu lañ ci tanko yo lañ né te vraiment amna yakarne aussi 2021 le bëri nañ ko ci def pour atteindre des résultats xale yi bo Sénégal c'est xale yi nek ci classe préscolaire yi euh, bu mo waxe classe préscolaire ya ya les CTP amna CTP case des tout petit, amna école maternelle amna classe préscolaire à l'élémentaire amna classe euh, communautaire euh, même amna dara aussi ya même les dara aussi les dara les dara préscolaire donc yooyu yëpp ay offre la yoo xam ne déjà dinañu dina tax aussi euh, benn benn bu ne euh, par rapport aussi ak demande ak ñi ko soxla ñu xool aussi ni ñuy def ba ba améliorer ko ba yóbbu ko sax 17,5% virgule 5 pour cent wax naa leen ci gestion accès sur les résultats bëgg nañ ko yóbbu ba 30 pour cent en en 2021